wa minhu bokk na ca ya araam maa la nga xam ne saa dafa hoo daa féeroon teeg moom muy daani roog ya araam loolu mooy waduhiya ngay woote lil ak li ci ak lekk miñ ajjili kasratil aya ngir bari kersa tax ngay woote waaye mbool su ndaw palaat su ndaw la ca nekk kenn dong ko mën a lekk boo yebee sa loxo ci bool bi sax la ca des du feeñ ndax bool ba tuuti nga woo téeméeri nit ne leen ñëw leen waañ ne loolu moom euh, dafa araam ndax yóbbu nga xelam ñëpp ca ñam ba te ñam ba dajut ñëpp ñaar sax mënu caa lekk kon bu demee noona fa nga ko jënde lekk ko fa te ñëw sa loxo yi kese waaye jëndi palaat ba ca añukaay ba yenn ko indi ko ci mbooloo te ci kenn dong la mën a suur nga di ca woote yooya araam na wa mën a tere nañu aydan ba tey anil akiimi ca akim ba alhëms muy loolu ñuy wax piis mbaa rummi mbaa regeju wa lëms ak lëms lëms mooy ŋóobi mbaa ŋeleju ŋeleju ak ŋóobi gémmiñ a koy def da ngay wengal gémmiñ ko eh, dëngal ko ŋóobi ko mbaa ko boobu baaxut ŋóobi moomu ak regeju moomu ak piis moomu dañoo jëm àllala taxriimi jëm ci araam wal hamsu nag loolu ñuy wooye hamsu aybun ak aybal la bi isaaratil huyoon ci junjëk bët dees na ca sàcc sax maanaam mel ni nga tase kuy jënd marchandise ca marché ba nga ne ko kaay ñu dem am naa ko daal di dem ca benn magasin ne ko jaay ko jox ko ventilateur bi mu jox la vingt cinq mille te fekk ñeenti junni lay jar daal di koy piis bët ya hmm, ñëw na sàccees na ca sàcc nga ko junni mu jox ko ventilateur bi mu jox ko juróomi junni mu dem nga ñëw jël si junni ba am nga bàkkaar kan ko defal am na bàkkaar baaxut ndeysaan mu ne yooyu ay ayibal la ay ayibal lañu ci junjëk bët wa lamsu lamsu nag bi lisaani ña ngi koy defee ci làmmiñ génne làmmiñ la ba wax dara ngeen ànd ne ko kaa ñu dem ma ko am naa ko ngeen ànd dem ba ca commerçant ba nga ne ko jox ko marchandise sangam mu jox la nangam ci xaalis te fekk na la nga ko wax ci xaalis ëpp na junni bu demee nga dellu si mu jox la junni ba loolu it aw sàccin la waaye boo ko koy wax da ngay génne saw làmmiñ moom mi jàkkaarloo yow mu seen ni nga génnee làmmiñ xam ne danga ko ne nan sàcc waa ji moom tamit jaaykat bi mu nangu loolu nga am bàkkaar yow mi ko def am bàkkaar moom ma ko nangu mu am bàkkaar waa ji moom xamu ci dara ñaar yooyu yëpp araam nañu dañoo di dem nag ñaar yooyu dañoo dem ala taxrimi jëm ci araam ndeysaan moo tax mu ne wal hamsu jëmmi amsu haybun ak ayibal bi isaaratil huyoon ci junjëk bët lees koy defee wal lamsu lamsu tamit bi lisaani ak ayibal la waaye ci junjëk làmmiñ lees koy defee mays xamal yaa fatiin yow aji xellu ji jàng sa diine sëriñ Tuubaa na bokk na ca ya araam wal ak lu ngay lekk bi diine ci diine di nax nit ña di lekk ci seen alal di lekk seen alal ci turu diine di dunde diine te dundaloo ci seen diine nañ ko war a xame jàngaloo leen seen diine ba pare di ca lekk seen alal wal aklu bi diine di dunde diine te dundaloo diine loolu araam na koy lekk alalam ngir diine war nga ko wax lan mooy faratay julek faratay koor ak faratay génne asaka faratay aj makka ak seeni sunna na muy sangoo farata yenti ponk d'islam yëpp booy lekk ala nit ci diine ala ci diine nang ko ca ndax yooyu mooy li ñu war a xam te waajal ko ndax ci bàmmel des ko fay jariñoo te kenn mënta tegg bàmmel ay lekk ala nit ñi ci diine te doo leen jàngal diine araam na wa bi safaaha ak boo ma joxee nangam ci xaalis ma defal la nangam nga am nangam araam na wa hakaza naka taaxiru fi li taaxati yéexamtalu jëf jot ak topp yàlla la julli jot ngay niig niigal rek di talu ba waxtu wa nar a passé araam na sarrul waraa ka gën a yées ci bindeefi allazina mooy ka nga xam ne allazina mooy ña nga xam ne yaaku soona dañuy ame am waalan alal bi diine ci dimbu boo diine te xamuñu ca diine dara duñ ca jàngale dara wa yaakuloona buñ noppee nag lekk alal jooja sëriñ Tuubaa nee na bu toonuhum seen biir buñ duggee bàmmeel takkoonu kal xusóori day niwi ba tol ni pale yàlla di ŋayi suuf si rek seen biir yay tawee ko rek ci biir bàmmeel ba yàlla gësal leen fa pax mu tol ni pale ci biir bàmmeel ba biir ba fonke ba xóote noona réye noona tol ni pale ca biir bàmmeel ba xaddan ëllëg wakal bu yooti ña lekkut lu bari lekk lu ndaw nag seen biire day néew ba tol nii néeg doona zuuri du waxi de lu dëggu la tasaa dina dox al aqaari bu jiit ya maal ayaati ak jaan ya fiihaa ca seen ye jaan ya di leen mat jiit yu tol ni jànklaar tol ni genn wàll mètre yu ñuul kukk di leen fet ca seen biire muy metti laal bi tax siibin yàlla di leen ko mbëggale bilaa mamaati te duñu dee yooye day amaka amaat rek ñuy waxoo ko jooy rek muy metti rek yàlla téye leen foofa ci biir bàmmel wa yatahaza dana loru kula man képp koo xam ne fi neeri yaa nga dëkk ak ñoom ca sawara min nat ni bu tooni him ca xet gu bon ngay génn ca seen biir isaarihu bu ñu demee ba nga xam ne ngelawal ga taxin gaar na leen